jigéen bu tolloo ci buumu sëy nga xam ne jëkkëram fasiwu ko bu amee doom ci sëy ba moo war a nàmpal doom ja te nàmpal nga kenn du ko ci fay dara lu may daa bokk ci ñoo xam ne waroomi daraja lañ ba duñ nàmpal mu ne waa Qurayshun waa Quraysh yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon ñoom dañoo aada woon duñ nàmpal dañuy nàmpalloo bu jigéen ja bokkee ci mel noonu nag bu nekkee ci buumu sëy dem du tax nàmpal ga war ko kon baay ba mooy seet keneen mu nàmpal te moom baay ba mu fay kooka bu xale ba amee alal ba tey baax na mais naa jël ci alal ja fay kay nàmpal jigéen biñ ko fasee tase moo xam ne amul fay li kon nàmpal nga waratu ko ne sax biñ ko fasee fasem pay li moom mu nekk ci buumu sëy ñooye moo doom jam ci am moo ko war a nàmpal waaye nag buñ ko fasee fase pase moo xam ne amutu pay li moom nàmpal nga waratu ko léegi nag kon mën naa jox keneen muy nàmpal te bàyyi bàyyi fay bàyyi xale ba mooy fay waaye moom ci boppam moom du fay ndax nàmpal gi waru ko ki nga xam ne moom nàmpal waru ko benn muy borom dara ji ja nga xam ne jigéen ñam bokk du ñu nàmpal mbaa muy ñu fase fase moo xam ne amutu fay li ba ñu wax ne moom ci bopp nàmpal gi waru ko ku mu ci mën doon bu ko neexee nag moom ci boppam muy nàmpal ba noppi nag ñu koy fay fay ga dañ naroon fay ab jàmbur moom ñu koy fay waaw moom mi nga xam ne nàmpal waru ko léegi mën nay nàmpal te la ñu waroon fay ab jàmbur moom ñu ko koy fay. wala xaa ji wax léegi am na ñu koy delloo ci jigéen ji nga xam ne daa amee daraja ba wërta nàmpal ndax ñam bokkal du ñu di nàmpal xam ne kooku doonte sax doomam ja moom rek la nangu nanguwul keneen nga xam su ko nàmpal doon du nàmp du tee rek sañ na buy nàmpal bàyyi ba di ko fay ndax nàmpal ka waru ko. am nañu delloo wala xaa foofu ndax bañ mu doon ak baamul yar moo yore xale bi di ko raxas ba mu set di ko solal di ko tëral di ko yëkkati di ko aar loolu mooy alxasanatu loolu la wax ne nag su fekkee ne jigéen ji jëkkëram da koo fase doom jëm ci am jigéen ji moo amee sañ-sañu yore ko noonee di góor ga du ko sañ a nangoo ci moom cosaan la nag nee nañ mooy dafa am benn waay bu fase woon soxnaam jàpp ci doom ji ne ko daa koy jël bu ñëwee ci yonante bi yonante bi ne jigéen ja anti axaqu bihi maalam tan ki xii yaa gën a yore sa doom ji yore ko li fekk demoo bu sëyiwaat bu sëyiwaat ga dina gàllankoor ci yore xale bi loolu moo tax nag képp ku tàggoog soxnaam daal te fekk soxna sa am fa doom na xam ne soxna sa moo amee sañ-sañu yore ga di toppatoo te du tee nag moom baay bi moo war a dundal moo war a wodd waaye nag yore ga moom jigéen jaa amee sañ-sañ ba lu may nag mu waxtaan ak moom bañ teg ko ci ay sart yoo xam ne moo koy taxal sañu jël doomam moom góor gi kon jigéen je mooy amee sañ-sañu yore doom joojee bu dee góor ga ba keroog muy kàllafe te it kàllafe ga dañ koy teg ci at te bañ koo teg ci lu mel ne sax kawar bu naq déedéet day am fukki at juróom-ñett bu dee ci gis-gisu waa Malick donte da caa boole dof wala mu lompañ it jëm yar ga ci boppam moom ci wàllu yaay ja foofu la war a yem du tee nag bàyyi ba moom jàll di ko dundal ndax la muy kàllafe yépp ndegam dafa dof wala mu lompañ mënta yor boppam aw baay ba moo war a gàddu dund baag koddaay la muy wéy bu fekkee doom ca jigéen la jigéen jaa amee sañ-sañ bi yor ko di ko toppatoo ba kere ñu koy may jëkkër ba jëkkër ji wéet ak moom su boobaa nag foofu la yore ngay door a yem nee na nag yaay ji nga xam ne moo amee woon sañ-sañ bi yore doom ja su demee ba amee gàllankoor te loolu mooy mu faatu mbaa mu sëyiwaat sëyiwaat boo xam ne dana ko tee mën a toppatoo doom ji kon dañuy seet maam mu jigéen ñi xale bi te mooy ka jur yaayam rek waaw kon kookee nga xam ne moo jur yaayam moo war a yore xale ba su fekkee maam mu jigéenum xale ba nekku fa baa ma nga fa waaye am na gàllankoor kon ñu seet ndeyam ju ndaw ndey ju ndaw yi xale bi kooku nag mooy ki bokk ak ndeyam ndey ak baay moom la ñuy jiital teg ca ka bokk ak moom ndey dong mujj na ka bokk ak moom bàyyi dong ndax dañuy jàpp ne wàllu ndey moo ëpp yërmande dañoo jàpp ne wàllu ndey moo ëpp yërmaane ba nga xam ne fu nu fi tuddi ab tegale fii rek xamal ne bu dee ci yaari wàll yëpp moom ndey ak baay mooy jiitu waaye bu ñu demee bay teqale nag ndey dong mbaa baay dong nag wàllu ndey ga la ñuy jiital mujj wàllu baay ba ak foo ko ci dégg rek dañ ko déggaat sa xëy na ay yooni yoon daa wax ne bu fekkee ñi jege xale ba ci wàllu ndey war ko yore fekkee kenn nekku fa kon say boo ñu seet ay ay mbokkam yu jigéen kon dañu jëkk a seet mbokk mu jigéen ma bokk ak moom ndey ak baay teg ca ma bokk ak moom ndey dong mujj ma bokk ak moom baay dong su mbokk yu jigéen yi jàllee ñu teg ca bàjjan ya dañuy seet bàjjanub ndey ak baay teg ca bàjjanub yaay rek teg ca bàjjanub baay rek bu ñu nee bàjjanub yaay rek mooy ki nga xam ne moo baayub xale bi ndey rek lañ bokk bu ñu nee bàjjanub baay rek mooy ki nga xam ne moo baayub xale bi baay rek lañ bokk xanaa bu fekkee ne ñeemu wax ñi muy mbokk yaag bàjjan yi amuñu kon nañu seet geñoog baay ga dafa wax nag waxin wu gàtt gàtt ci ni nga xam ne moom la ñuy tegalee ña war a yor gone ga waaye daan la ko tegalee léegi nga dégg li mu tegalee nag mooy ñu mu bëgg a wax kon jàppal ne xale bi ki ko war a yore ci ci jëkk mooy yaayam yaayam saa yoo xam ne jëkkëram fase na ko te sëyiwaatu bay am gàllankoor mbaa beneen gàllankoor kon yaayam moo amee sañ-sañ ak yore xale boobule bu fekkee ne yaay ja nekk fa mbaa sëyiwaat na ba am gàllankoor kon ñu seet maam bu jigéenum xale bi maanaam ki jur yaayam maam bu jigéen mi jur yaayam kon moo cay topp su fekkee ne seet nañ seet amul maam ju jigéen moom xale bi ñu seet ndeyam ji ndaw maanaam ku bokk ndeyam ndey ak bàyyi la ñuy njëkkee su amee teg ca ka bokk ndeyam ndey dong mujj nag ka bokk ndeyam baay dong dañoo jàpp ni wàllu ndey mu ëpp yërmaande moo tax faaw ci wàllu yaram moom ka féete ci wàllu ndey kese moom la ñuy jiital door caa teg ka féete ci wàllu baay kese su fekkee ne ndeyam ji ndaw nekk fi moom gone gi ñu seet maam ji ndaw maam ji ndaw mooy koo xam ne rek ndey ji ndaw ndey ji ndaw la woon ci yaayam li ngay waxee sa baay bu ndaw rek nga xam ne moo bokk ak sa baay ba tey boo nee sa maam ci ndaw mooy ka bokk ak sa maam rek kon kooku moo war a sës bu fekkee ne kooku amut ñu seet maam ji jigéen ji nga xam ne moo jur baayam koo tudde ummul abi kooku moo ci war a topp maam mu jigéen mi nga xam ne moo jur baayam bu kooku jàllee ñu teg ci baay ci boppam bu fàtte ni nee naa woon nag bu ñu nee ak góor ku mel ne baay moo amee sañ-sañ bi yor itam te aajo woow dend ak jigéen joo xam ne maanaam mu amee jigéen joo xam ne moo koy yoral yor ba dëgg-dëgg su baay jàllee nga teg ci mbokk mu jigéen mbokk mu jigéen ñett la waaye da ngay njëkk tudd ki nga xam ne moo xale bi ñu war a yor ñoo bokk ndey ak baay fa nekkut ñu seet ki bokk ak moom day dong fa nekkut ñu seet ki bokk ak moom baay dong ki bokk ak moom baay dong faaw mooy mujj ndax bu dee ci wàllu gi dañuy jàpp ne wàllu ndey gi mooy ëpp yërmande su fekkee xeetu mbokk mu jigéen amut ñu ñëw ci bàjjan bu fekkee ne am na bàjjen moom xale ba kon bàjjenam it da ngay njëkkee bàjjenam bi nga xam ne moom baayam dañoo bokk ndey ak baay teg ci ba nga xam ne moom baayam dañoo bokk ndey doom mujj ba nga xam ne moom baayam dañoo bokk baay doom su fekkee ne bàjjen amut nga seet ba xam am na doom ju jigéen yi mbokk mu jigéen mu déet xam nga wàññi woon nga mbokk mu jigéen ngay seet nag ba xam xale bi mas naa am mbokk mu jigéen moo xam ne nekku fi mbaa am na ngant waaye mbokk mu jigéen moom bàyyi na fi doom bu jigéen waaw su fekkee ne doom bu jigéen ni mbokk bu jigéen am na mooy sës bu fa amul nga teg ci doom bu jigéen ni mbokk mu góor su fekkee amoon na mbokk mu góor te mbokk mu góor ma am doom bu jigéen kon doom bu jigéen ni mbokk mu góor mooy sës bu ko ko jàllee ñu teg ca ku ñu dénk xale bi maanaam bu fekkee xale bi am na ko bàyyam féetale woon ne ko yow laa ko dénk kon kooku moo war a sës bu fekkee ne bàyyam féetale ko kenn waaye àttekat bi seet na ba féetale ko kenn dénk ko it ba tey kooku moo war a sës ci yor ba bu ñoon jàllee nga teg ci mbokk mu góor xam nga tuddee nga doom bu jigéen mbokk mu góor ba nga tuddee doom bu jigéen mbokk mu jigéen waaye mbokk mu góor ci boppam tuddagoo ko soo weesoo kañu dénk kee nga weesu nag léegi mbokk mu góor mu xale bi moo war a sës waaw moom it da ngay njëkkee mbokk mu góor ma nga xam ne moo bokk ak moom ndey ak baay teg ci ma nga xam ne moo bokk ak moom ndey dong mujj ma nga xam ne moo bokk ak moom baay dong su fekkee ne mbokk mu góor wéñu nga teg ci maam mu góor waaw am na góor bu lay tuddee ko woon foofu nag loolu war a ñëwee ci tegtale bi ci ci ni ngay toftalee maamu góor mooy sës ci mbokk mu góor su fekkee ni maamu góor amul nag nga indi doomi mbokk mu góor su doomi mbokk mu góor amut nga indi doomi maam ji góor doomi maam ji góor nag mooy doon baay bu ndaw rek baay bu ndaw lañ jublu alxamu su fekkee ni baay bu ndaw amut nga indi doom ji góor yi baay bu ndaw waaw foofu lay sëse doomi baay bu ndaw foofu lay sëse gannaaw boo weesoo ñooñu nag say boo far ci teg rek maam ju góor ji nga xam ne moo jur ndeyam maam ju góor ji nga xam ne moo jur ndeyam moom mooy rek mooy baayub ndeyam rek waaw baayub ndeyam moom wax al jëdd abul ummi kooku nag moo ci mujj ci niñ koy tegalee teewul nag dañoo tëb foofu ñaar ñoo xam ne bu doon ci jamono yi ak njaam amee ñu doon di tuddee almawlal ala ak al almawlal astal ñoom ñaar bokk nañ ci ñi amee sañ-sañu ko yor waaye nag dagam léegi mbirum njaam moom dafa jeex jotuñ ko moo tax ñu far tegalee noonu ci askan rek te bu fekkoon ne ñoom amoon nañu kon saa ñu leen tudd.
day bëgg wax ñi nga xam ne nag yoon moo la sant nga dundal leen te sañoo koo bañ sa soxna moom yaa ko war a dundal dëkkal ko di ko wutal koo daay donte moo la ëppale sax mook mu ñàkk ñooye moo du tee loola yow la war yow jëkkër ji kenn ngoo ko waxala ab wayhi ak ci ñaari waajuram alfaqirayni aji ñàkk sa ndey ak sa baay buñ ñàkkee te yow nga am yaa leen war a dundal bu fekkee ne ngaa ñàkk ne ñoom nag yoon du la forcé ne la tey nga am joom yi liggéey yor leen loolu moom boo ko defee rek baax na sàkku ci tuyaaba waaye yoon du la forcé moom ne la tey nga liggéey yor sa ndey ak sa baay bu fekkee nag doom yi dañoo limu kon dañuy seet dundub seen ndey ak seen baay ñu bokk ko kenn ku ne am loo ca gàddu dañ seet nañ gën a mënantee ñu ëppalante ca noona nee na ba tey yoon moo la sant nga dundal say doom bu dee doom ji góor ja ba keroog muy kàllafe te am wér ak kattan mën a wutal boppam yaa ko war a yore bu dee ku jigéen ka yaa ko war a yor di ko dundal di ko dëkkal di ko woddu ba kera muy am jëkkër ba jëkkëram du wéet ak moom sa doom ji góor nag moom saa yu demee ba kàllafe ba noppi itam mën naa fàggul boppam rek sa jaan wàcc na bu la neexee nag laaj ko ba xam daa bëgg a toog ànd ak yow ci doxinu àdduna wala daa bëgg a beru lu mu ci bëgg rek nga fekk ko ca waaye yow daal ndegam moom kàllafe na moom sa doom ji góor ji te ànd naag xelam bu baax mën naa fàggu kon yow sa jaan wàcc na bu dee ko jigéen ko itam boo ko mayee jëkkër ba jëkkër ja wéet ak moom kon jëkkër jaa gàddu dund ba yow sa jaan wàcc na xanaa li mat a leeral foofu de mooy nee nañu sa doom bu jigéen moom boo ko mayee jëkkër te jëkkër ja mënu ko yorit nga xam jëkkër ja ku ñàkk la du tax dund sa doom bu jigéen boobee wàcc la mook sa yaay ñooye moo sa yaay boo ko wutaloon péete ñu wutal ko borom kër itam te borom kër ba néew doole mënu ko yorit du tax ab dundam moom sa yaay wàcc la ñooy ñaar moom nga takkaale ko foofu nee bu dee ci say jege ñaale moom ñi mu la ci waxal rek ñoom nga war a dundal ci yoon ku bokk te ñoom nag mën nga koy dundal ci sa coobare ak sàkku ci tuyaaba rek waaye ñi rek ñoo la war jamono yi jaam amee nag soo amee jaam muy góor muy jigéen yaa ko war a dundal bu faatoo itam yaa ko war a wutal jàngaay te itam nag sañu koo teg lu mu mënut boo ko naree teg lu mu mënut rek ñu waxal wax nga bañ rek yoon nangoo ko ci yow jaay ko man ngaa njëkk a takk rek ne képp koo xam ne yoon moo la teg ab dundam ndax da ngeen a jege ci mbokk wala ci njaam niñ ko xewoon léegi su boobaa yaa ko war a wutal jàngaay bu faatoo fi mu toll nag léegi mooy soxna si nga xam ne yaa ko war a dundal nii mu dem nag ba faatu ana ku ko war a wutal jàngaay am na yetti wax sax noonu mi teqale moom day wax ne su fekkee soxna sa bàyyi na fa lu ko mën a sàng kon ci alali boppam lañ koy sàngee ku amul nag jëkkëram moo ko war a sàng Abdul Malik ne déedéet jëkkër ji moom ndegam bi soxna si faatoo itam xëy na sax bu musée gi dagg na waaye ba léegi sañ na koo sang bu bu ne woon maa koy sang man jëkkër ji kenn du ko xëccoog moom kon daawel ne kon sang ci itam nee na moo ko war a warlu kon jëkkër ji moo war a sàng soxnaam bu faatoo ci ni Abdul Malik moom gisee Ibnul Xaasim nag moom moo wax ni moom daal soxna si ci boppam rek ak lu mën di am bu xasee faatu moom jëkkër ji jàngaay waratu ko ca ci alali boppam daal ca lañ ko war a sànge su fekkee amul alal nag ñu dem ca baytimaal su fekkee baytimaal amut nañ dem ca mbooloom jullit ñi ñu dajale wutal ko càngaay waaye jëkkër ji daal moom bu xasee faatu rek càngaay waratu ko ca wax ibnul xaasim jooju nag moom la ñuy sukkandikoo ci la ñuy ubbee daal bu dee ci yoonu Malik lee mu weesu ne su woomalee war naa wutal ab surga soxnaam ndegam soxnaam yelloo na ko mooy léegi li ñu tuddee mbindaan jamono yam yu taalif moom na nga xam ne booba jaam dëgg-dëgg am na bu fekkee soxna sa laata ñu ko koy may daa sartan daa sartante woon nag moom ne ko faaw kat danga may wutal ab jaam bu may liggéeyal su boobaa kon soxna sa mooy moom jaam ba dëgg-dëgg ndax dañ koo sartaale mu bokk ci alal yi sëy ja bu fekkee waxaale wuñ ko woon nag ca ba ñuy fas sëy ba nag gannaaw bi rek la góor gi indi ab jaam ci kër ga kon góor gi moomu jaam ba su ko mayee soxna sa soxna sa door ko moom léegi lu toll nag moom jaam bu ñuy jënd di ko moom amatut kon léegi mbindaan moo des kon nu wax ne su fekkee ne soxna sa yelloo na ñu wutal ko mbindaan te borom këram mën na ko kon naka ko wutal waaye nag da koy wutal mbindaan mu jigéen baa bu fekkee ne góor lay doon na nekk góor goo xam ne wóolu nañ ne lu yàgg-yàgg du mën a joteeg soxna sa dara dara lu aay